muy wàllum yekkataan te tubaab di ko wax viol mel ne jëf ju bon la joo xam ne jëf ju ñaaw la jëf ju salte la ba noppi mel ne lu bari suñu jamono ji lool bisib seet nga koy dégg te ñu ëpp si ñi ngi koy def mooy xale yi nga xam ne xamaguñ dara loolu nag jëf joo xam doon jëf joo xam ne nit ku ne war na laa metti waaye nit ku ne tamit war nga say tiit lool ngir yaatu gum yaatu ci jamono ak bëri gum bëri di gën a law mel na nag ñi nga xam ne ñoo yor wàll yoon ñi ngi ciy bay seen waar bu baax di si xar seen tànk tubéy ngir mu jug fi di si def seen liggéey liggéey bu ama am solo waaye mel ne saay-caay yi nga xam ne ñoom ñoo koy def day gën a law di gën a yokk tey gën a yaatu ñu ne woon nag mbir mu am zaahir rek am na baatin comme que ñoom ñu ngi doxal wàllu saahir si di si bay seen tànk tubéy di si bay seen waar di si xar seen tànk tubéy te teewut ba tey rek mi ngi gën a law kon nañ ci boole wàllu baatin gi wàllu baatin gi nag lim doon mooy bëri na ay sirru ak ay sekkare yu nekk ci alxuraan yoo xam ne képp koo xam ne defal nga ko sa doom wala nga defal ko sarak wala nga defal ko jigéen gu mu mën di doon kenn du ko mën a jariñoo ku dut borom këram te képp ku ko tiim bëgg kaa saay saaye wala nga nar si moom aw ñaawteef loola nga bëgg du sotti te itam suñu borom dina la weer te képp ku koy jéem a def koo xam ne sirru booba defal nañ la ko ci alxuraan képp ku la tiim bëgg laa def ñaawteef woowu bëgg àgg sa kaw te du sa borom kër la gën a tuuti ca la lay dal muy néewal sa kàttan muy yoom loolu mooy la gën a tuuti ca la lay dal liggéey bi nag ñetti étape la xale bi door a judd toll ci fer xale bi nga xam ne day door a judd ba korog muy fer ak ki fer ba korog muy mesure ak ki mesure te du amagul borom kër ku si nekk rek ak nañ lay defal bokkut ak sa morom waaye comme day doon mbirum baatin doon mbir mu sensible boo xam ne doonut lu ñu war di wax nii di ko yaatal ndax day doon mbir mu secret képp koo xam ne daal dégg nga ko te mu yitteel la te yaakaar naa ne waajur wu ne war na laa yitteel mag ju ne war na laa yitteel waaye nijaay ju ne tamit war na laa yitteel fexeel ñu jokkoo si numéro yi rek incha allahu rabbi suñ si jokkoo rek dinañ la ko defal te itam sa njaboot goo ko def suñ borom dina la leen aaral te dina leen sàmm ba ku dut seen borom kër du leen mën a jariñoo ki nga xam ne da am sa doom nag wala nga am sa rak wala sa jarbaat mu doon jigéen ba noppi mel na ku bëri solo lool bëri ay dugg-dugg mel na ku xaw a jubadi kooka sax suñ ko ko defalee incha allahu rabbi suñ borom dina génne loolu sa xelam te incha allahu rabbi ak caay-caay képp ku jug ngir def ko ko loola du ànd te ni ma ko waxee léegi si ginnaaw rek la gën a néew ca lay dal kay jéem loola muy yoom kon nag képp koo xam ne rek dégg nga suñ vocal bii suñ vidéo bii seetaan nga ko na nga jokkoo ak ñun si numéro bii ngir loolu ñun ñëpp taxaw takk suñ tubay ngir mu jeex si àdduna bi ndax bëri na lool te jëf ju ñaaw la ju bon joo xam ne ku nekk war nga xar sa tànk tubay ngir mu jóg fi kon nag loolu daal mooy li nga xam ne waxoon na dinañ leen ko ci indil ku si bëgg yeneen leeral yu gën a leer rek jokkool ak ñun si numéro yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu